wa barakaatu bokki julli di bokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen nuyu di leen ziar ci ànd gi nga xam ne baaxoo ngeen ko ànd ak ñun ci émission bu am solo bi nga xam ne mbokk yëpp ñu ngi koy bàyyi xel muy seen émission gàgganti muy émission boo xam ne dañ koo sos ngir fàttalewaat diine waaye mbokk yi nga xam ne ñu ngi gëstu diine ñu ci rotal ay laaj yu am solo yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi ciy jëriñu bu baax a baax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 di siyaare mbooleem kilifa yi di siyaare Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu taala wa raa di nuyu mi jiite daairatu muqaddamatul xidma am mbokki daayir yëpp rafetlu seeni taxawaay ci liggéey bi di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi yittewoo jataay yi ngir bëgg a xam seen diine borom wala njëriñ jërëjëf sëriñ bi ci ubbeegu am solo boobu xam naa laaj bu njëkk bi mooy euh, mbokk mi day laaj ne dafa nekk fële ca bitim réew waaye saa yoo xam ne waxtu ajjuma jot na dañuy def effort ngir man di ko julli waaye mel na ni barab booba amut fu mën a julli ajjuma muy wax ne ndax fan nekk ñoom danañ mën a yëg ca kaw terrasse ba su fekkee ne eh, mat nañ mbooloo man mën a julli ajjuma ndax suñ ko jullee dana dagan ci ñoom wala déet ak lan la lislaam wax ok jërëjëf sëriñ Thierno ci madhabu imam Malik bi ñu nekk de moom hmm. ajjuma dee su ko jullee ci ak ndànn fay-fay ci barab bu ñuy tudde jàkk lañ koy jullee ko bu nekk jàkk dañuy des xam ne ak nit bu tukkee nekk fu mu dëkkul ajjuma du ko war lu dul ne daa war waa dëkk ba kon bu fekkee ay jurit yu fa dëkk am nañ fa bañ am jàkka di fa julli bu waa ñoom ajjuma day war ñoom ña fa nekk nekk ay muqimoon waaye bu nekkee foo xam ne ña fa nekk du julit amuñ jàkk nañ jàpp ne ñoom ajjuma warul leen ndax muqiim ajuma du ko war lu tabaxan li ahlil madina day war waa dëkk ba door ko warale moom euh, kon bu fekkee daal jàkk am na fa waa dëkk ba fa nekk di ay julli dëkk fa ñu am fu ñuy jullee ñoom ñene foofu mën nañu war na leen juli ji euh, suñ fa demee xaj fa baax na buñ fekkee ñu julli ba noppi ñu julli tisbaar amaa nag di dajaloo ci benn bayal boo xam ne dara téemu leen di fa juli moom mm. bu dee ci mazhab Malik fu mel noonu dee su fa julli ajuma jërëjëf sëriñ bi ci leer yu am solo yooyu beneen laaj bi mooy kii dafa ame bor waaye am na yéene fay ko waaye am na coono yu bari ngir mën a fay bor boobee fara nag am mbokk moo xam ne daf ko jox bii màkka ndax dem dema màkka googu dana wér walla day fay bor ba doogu mën a dem sëriñ bi waaw xam nga bor moom dañuy bëgg nit ki bu ko amee te mi bor bu teew hmm. kooku dem màkka waragu ko ndax mënagut bu fekkee ne su fayee bor bu jeexal hmm. dem màkka waragu ko te nag dañoo war a bàyyi xel ne dem màkk ak jaamu yàlla la mm-hmm. du aada ju ñuy dundal mm-hmm. jaamu yàlla ki ko man lañ ko sant kon ki ko mënut bu forsee di ko def rek am na leen lu ci nekk lu bokkute yàlla mm-hmm. kon jarut nit ki di ci sonal boppam ba euh, di di gàddu ay bor ngir ngir ngir ngir euh, ay aj kon bu fekkee amee na ay bor daal bor yoo xam ne seen dig ak seegut moom dañuy wax nit ki tam xam ne aj gi du yàq dara ci du tee mu fay na mu war a fay. kooku sañ na yori bor di aji wala mu tàggu ko ameel bor mu bàyyi ko loolu lépp nag mooy bu dee alali boppam waaye bu fekkee nag keneen nit moo ñëw ndax daa bëgg nga ñëw aji kooku sañ naa aji ndax du alalam nit a koy dimbale te mën naa la mu koy dimbalee dimbale wu ko ngir mu fay boro du ko dimbali ngir mu aji waaw nag mën na ci aji waaye li ñu doon tere kay mooy mu dajale alalam au mu fay ko bor bi mu ne da koy aji. Hmm. kooku bu bor bi di teewee da ko war a fay. bu desalee lu mat lu aj war mu door xa ñu door a xam ne aj war na ko. jërëjëf sëriñ bi ci leer yu am solo beneen laaj bi mooy eh, imam bi dafa day julli commencé ci bis alhamdulilahi rabbil alamin maamu yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam di sàkku mu commencé ci bismillah mbokk mi di laaj ne diggante commencé wax bismillahi rahmaani rahim doog wax alhamdulilah wala commencé alhamdulilah lan mooy seen différence ñaam ñoom ñaari kii yooyu. ok jërëjëf sëriñ Thierno xam nga ci masaahib yi. Hmm. wuute daa am ndax bismillahi rahmaani rahim aaya la ci fatiha wala déet hmm. day ci mazhabu malik liñ jàpp mooy bismillahi rahmaani du aaya ci fatiha alhamdulillahi rabbil alamin la tàmbale xayril maghdubi alayhim mooy aaya mu mujj jëm hmm. ñooñu bu ñuy julli bis alhamdulilah ñu tàmbale te am na ay xadis yu ci nag ki sax hmm. nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaam abou bakrin omar buñ daan julli alhamdulillahi rabbil alamin lañ daan tàmbale teewut nag am ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax bismillahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmani da ko daan yelu wax yu bari am na ci ba ci masab malik bi li ci mashhur mooy alhamdulillahi rabbil alamin la ñuy tàmbale julli donte am na ci biir masab bi ñoo xam dañuy tàmbale bismillahi rahmani rahim hmm. kon loolu du lu am solo hmm. waaw lu ci lu mu ci def rek ndax ay woromi xam-xam wax nañ ko ci delloo nañ ko ci ay gis lay hmm. lu ci nekk mën naa nekk kon loolu wóorta nekk lu wóotale nit ñi mu daal bu fekkee ne ñi ñi muy jiite ñëpp ñoo taamu loola mu def ko wàññiwul dara waaye ñoom itam nañ xam ne moom bu tàmmul alhamdulilah rabbil alamin it du tey seen julli mi baax na incha allahu taala jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo mbokk mi dana saa yoo xamee ne dafa nekk ci julli rek day bari lu muy fàtte maanaam di jaawale rakkay yi muy laaj loolu lan la ci lislaam wax ak lan mooy atte bi nga xam ne moom la ci lislaam euh, dogal waaw bu dee nit koo xam ne dafa day jum lu bari hmm. kooku la ñuy tuddee mustanke hmm. nga xam ne saa bu julli daal dana jaawale ñaata rakka am. kooku dañuy wax ne buy sikk sàkkaati na jàpp li gën a bari maanaam buy sikk sàkk diggante ñaar ak ñett ñett lay jàpp. loolu mooy safaanu ki nga xam ne sikki sàkk da koy gaar rek léeg-léeg waaye du bëriwul lu koy daal kooku saa buy sàkk ñaar la wala ñett day jàpp li a néew te bu noppee mu sujud ba'da salaam ki nga xam ne loolu da ko daa mel ni jàngoro ci moom dañ koy wax ne ko bu sikki sàkka te bu mu faale na jàpp li gën a bari te bu jullee ba salmal mu sujjóot da salaam. Mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi ci leer am solo mbokk mi day laaj ne dafa am benn waay boo xam ne suñu borom dafa da koo dénk alal muy génn asaka waaye nee na asaka jooju jooju muy génne am na doom joo xam ne eh, am na maanaam da xam naa dafa sëyi feneen ci kër mu ne ndax su ko génnee dana ko mën a jox doomam jooju jigéen joojo ndax aajowoo na ko lan la ci lislaam wax. doom ju jigéen bàyyi ma ko war a dundal. Mm-hmm. ba ba muy am borom kër borom kër ba wéet moom te man koo yor mm-hmm. mu door a wàcc baayam war borom kër bi mm-hmm. waaye nit su mayee doomam borom kër boo xam ne loxoom jotul ginnaawam mm-hmm. dund dund doom jigéen ñi wàccugul bàyyi kon même bu ko mayee moo war a di ko dundal bu fekkee borom kër bi daa man daa man dara te doyut lam man lay def la ci des bàyyi ko war a nit nag boo ko waree dundal waroo ko jox asaka kon doom jigéen dees ko jox boo xam daana ci sa kër wala daana ci néegu sëyam bu fekkee ne fa muy sëy borom këram daa amut lu doy lu mu ko jox su boobaa euh, yow yaa ko war a dund yow mi bàyyam bu manqué la manqué yaa ko war a jox kon waroo koo jox asaka bu nag borom kër bi am na kon boobaa borom kër bee a dundal kon boobu tam warul ko jox asaka jërëjëf sëriñ bi ci leer yu am solo yooyu mbokk mi day laaj dafa am xeeti application yu bees yoo xam ne dañ koy mën a tudde carte nga xam ne ñaari mbir lay doon yoo xam ne dañ lay tegal ne su fekkee ne jàpp nga li nga xam ne moom lan la tegal mën ngaa gañe xaalis muy laaj loolu ndax am na ñoo xam ne nag dañ ko ñoom loolu seenub liggéey la muy laaj ndax ñiy def ak ña liggéey alal jooju ñuy gañe ci eh, loolu dagan na wala déet ak lan la ci lislaam wax waaw su fekkee ne dañ lay wax ne da joxe nàngam hmm. boo gañee am lu bari hmm. loolu mooy carte carte moom mooy dangay dugal tuuti am lu bari loo xam ne dafoo effort bu tax nga am ko. am mm. nu ñu ko mën a tuddee nag. Mm. te carte nag dafa bokk ci xaraam. Mm. rijsun min amali shaytaani fajtanibuhu la borom waxoon. innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaam. yooyu mu dajale woon. rijsun min amali shaytaani fajtanibuhu laallakum tuflihun. bu ngeen bëggee taxe day ni bàyyi yooyu kon carte daganut liñ ci jëlee alal ju xaraam la. ña koy organiser ak ña cay bokk ñëpp luñ ca mën a jëlee ci alal alal ju la. kon loolu jul di ko war a moytu. rawatina di ko jéem a def métier. bi mbokk bi nee na léeg-léeg day gis eh, suñ mbokki takk der yi di dugg ci ay oto yoo xam ne xëy na su fekkee ci oto état bi la moom mën nañ naa mën nañoo bañ a fay waaye léeg-léeg ñu nekk ci aw yoon eh, ñu arrêté bu oto dugg ci te duñ fay muy laaj loolu ndax loolu dana dagan ci eh, waa ji nga xam ne moo dugg ci oto moom police bi ak lan la ci lislaam topp kooku nga xam ne moom dugg ci oto bi te dugg ci oto bi te fayut borom. bu fekkee ne dama jàpp nag ne loolu bu amee moom xëy na borom oto bi moo ko may xëy na. Hmm. bu dee oto boo xam ne day transporter ñuy fay ku ci dugg te mayuñ la da ngaa war a fay. Hmm. léegi nag xëy na fii nit ñi takk der léeg la ñu ragal ko wala am lu tax luñ bàyyi xel ba tax bu duggee ñu ne ko yow bul paas. Hmm. bu fekkee ne bu fekkee ne du ger de lu baax la. mën naa nekk ci baabu taawun waaye dama nurundoo lool nag ne eh, ki dugal ab takk dara ci otoom ne ko may naa la paas bi ma ngay seenu ëllëg mm-hmm. ci moom moom itam bu amee lum daf war koo topp dara ñu may ko ko mm-hmm. waa na gerlaw bi ci des it taawun al ismi la ngir bëgg soo jàdda yoon ñu bañ la topp mm-hmm. tax yow itam boo ji dikki nga ne ko bul paas loolu ger la te ger dëgganul jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo mbokk mi day laaj nee na ndax dagg na ci jullit muy jaay cigarette dëgganul sëñ Thierno mm-hmm. ndax lan ndax cigarette ci boppam dafa dëgganul mm-hmm. li wér mooy borom xam-xam yi saxaal nañ ne baaxut ci wér gu mm-hmm. naan saxar amul benn njëriñ nit baaxut ci wér gu te it ab jullit nag warta lor boppam warta lor keneen te ñaari nit ki tuux daan lor ki muy am na ñu tuddee attadxin salbi nga xam ne ñi dend ak yow naan saxar soosu sax mën nañ jox ay wér di ginnaaw genn anam buñ ko mën a jariñoo kon jaay ko dëkkandoo. ci lislaam dañuy wax ne lépp loo xam ne amul genn anam buñ ko mën a jariñoo. jaay ko du dagan jënd ko du dagan. cigarette ci parce que cigarette lu jariñoo lu naan saxar te naan saxar dëkkandoo. kon mu leneen sëriñ ci leer yu am solo yooyu meneen mbokk mi day laaj ne mu ne ndax dagan ne ci jullit muy jaay loo xam ne dañ koy wooye ne day dëgërël sàkkara ndax nee na loolu liggéey bu dagan la wala ab jullit war naa mën a def loolu. waaw bu fekkee ne xam nga néew doole ci wàllu googu wéradi la hmm. bu fekkee ne li muy jëfandikoo dul sobe hmm. du luy jeexital ci wér-gu-yaramam faw ñu xool loolu bu dee sobe la mu sobe des ko jëfandikoo hmm. bu dee loo xam ne baaxut ci wér-gu-yaram ab te yàq wér-gu-yaramam bu muccee ci yooyu nag dara nekku ci jërëjëf sëriñ bi leer am solo ma kii nee na day laaj euh, ndax dagan nitu jullit muy jëfandikoo ndab loo xam ne dañ caa def sàngara maanaam bi ñu defee sàngara ba noppi nga xam ne utiliser diñ doon utiliser sàngara moom dem na ba deñ ndax dana dagan ci jullit mu jëfandikoo ndab loolu waaw bu fekkee ndab boo wax ne lu mel ne butéel boo xam ne am ñol la ci nekkoon mm-hmm. bu deexee ñu raxas ba set ba xam ni xet gaag caf ka gaag melawoo dara nekkatu ca mm-hmm. te it mandarga muy wane ne lii kat ñol la tax mm-hmm. soo waa dara nekkatu ci ndax day mel ne dañu ndab la woon rek loo xam ne xëy na nit di def ko ci waaye nekkul lu ñu jagleel ñol lu kese waaye mën nañ cee def ñollu buñ ko raxas ba mu set mën caa def leneen rawatina wa xanaa nag bu amee màndarga moom yoo xam ne boo ko yoree day dangay ngay siiwalal euh, njaay moom di siiwalal am ñollu boobaa mu baax mm-hmm. ndax loolu moom kenn wuru cee jàpp ci lépp lenn lu koy tasaare mm-hmm. waaye ci misaal bu doon nag bitéel yoo xam ne xëy na <coughs> dañ ko doon jëfandikoo mu jeex amul benn mandarga mm-hmm. nga jël ko raxas ba mu set wicc ba jeexee ti ñollu dara nekkatu ci waaw nag jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo kii day laaj nee na lan mooy àtteb koo xam ne dafa jàng aw saar wala ab aaya ci ñaari rakk yu mujj yi te mu nekk farata lan mooy ab àtteem waaw julli farata ak julli naafila julli julli naafila moom xam ñaar rakka la ñuy julli loolu ci mosab Malik hmm. waaye farata ñaar rakka yu mujj yi fatiha képp lañ bëgg njàng ko ca hmm. waaye boo ci yokkee aw saar it nag daf nga lu ñu la hmm. waaye dara warul doo sujjóot julli gi yàqu waaye nag santuñ la ko beneen mbokk mi day laaj mu ne eh, kii góor la goo xam ne dafa am ñaari soxna ñaari soxna yooyu am koo xam ne mbërëg daf ko gaar mu ne mu wax seeneen soxna si nekk ndax da nga mën a waxtaan a ke ki nga xam ne mbërëg moo ko gaar ngir mu mën a aaye ca ka nga xam ne mbërëg gaaru ko muy laaj loolu ndax daga na ci lislaam ndax lan la ci lislaam wax waaw bu dee ay ayoloo day ci ku yor lu ëpp benn soxna. Hmm. waajib la jigéen euh, nit bu amee lu ëpp benn soxna daa war a yamale ci ay panaanam. Hmm. doonte soxna sa aye daa am ngant. moo xam ngantul baax na nu ko waxe hmm. wala daa tax wërta bàyyi ak ayam di dem ci keneen. lu dul ne. soxna soosu moo may ak ayam. kon bu juboo ci ne. su ma gisee baax sama ay may naa ko sama wujju sañ na ko. loolu sañ na ko hmm. waaye moom rek moo koy sañ nag hmm. ñu ko ko xañ waaye kenn sëñ góor sëñ te hmm. yéen ku ci aye eh, bu amee ngànt ma jël ma jël ay gi jox keneen moomu ko ba di ko joxe moom mi ko moom nag su ko jërëjëf sëriñ mbokk mi day laaj mu ne dafa am góor goo xam dafa am ñaari soxna waaye ñaari soxna yooyu seen ñaari néeg yi benn néeg bi benn néeg soxna si ci moo am salle de léegi nag mu aaye ci néeg ki nga xam ne amul salle ndax daana dagan ci moom mu su xëyee ba war a jëfandikoo li ko lislaam wax muy sangu ndax dana man a dem ca nekk soxna sa nga xam ne ayu ca te fa la bi nekk muy laaj loolu la ci lislaam wax ak nu mu war a def. loolu de ñu ngi njëkk lijjanti lu tax kenn ki am salle de bain kenn ki amu mm-hmm. Mm-hmm. ndax àq jigéen la nga dëkkal ko ci fi nga koy dëkkal. Mm-hmm. maraafiq yi mënta ñàkk mu am fi. bokk na ca wanag. waañ. yooyu noonu. fi li jaadu mooy jigéen ju ne am am ko. xëy na fii moom. aada ju rafet ak jigéen yu baax ñoo fi nekk ba mm-hmm. di bokk wan ak di bokki waañ waaye li jaadu ñoom boo leen ci benn barab mm-hmm. kenn ku ne ci ñoom mm-hmm. tax fa nekk nekk kër kon nag kenn ki nga wutal ko wan ci biir néegam cees amu ko bu ci àndee son su nangoo baax na nangoo baax na bu dul loolu kee da ko matalal mbiram kee nga ko ndax yooyu daa bokk ci mënta ñàkk ak lu mën a xew bu bu bu ci ci ci keneen ki. Hmm. keneen ki am wanag wi bu mu layee mukk damay bëgg sangu moo tax ma dem ci wanagu kenn. Hmm. ndax dañuy eh, wax ne ak ay. Hmm. wartu dugg ci ne bi di fa dugg ndax wanag sangu moom. boo fa duggee da nga jàll ci biir. da nga summiku loolu mën na faa loolu du dagan ci ku ayewut. bokk eh, ki nga ayee mën nga taxaw ci buntu nit ñëpp nag nuyoo. boo fa amee soxla su farit ban ngaa dugg taxaw wax soxla sa waaye bul jàll ci biir toog sa tëdd ci la laax yooy ku ñuy tere toog ci bi lal tëdd nag jàll ci woon nag mu ci raw mm-hmm. kon benn mm-hmm. euh, na def wana wi foo xam ne ñoom ñëpp dañ ci mën a yem mm-hmm. su boobaa ku mën a aye dañ ko mën a jariñoo loolu mooy li bu dul loolu nag su ayee ci keneen ki amul mu an mu def na soxna soxla si idan amul wana ak ki ne gëm hmm. bu aajowoo na muy def na ànd ak moom def noonu jërëjëf sëriñ ci leer yu am solo yi mbokk mi day laaj ne mu ne koo xam ne day jëfandikoo wirdu maxuus lu njëkk ñu naan asalaatu xayru mina naw mi mu ne loolu ndax eh, su ko defee ci njëkk waxtu wi min wax asalaatu xayru mina naw mi dana am wirdu wala day bàyyee ban wax asalaatu xayru mina naw ba noppi mu doog a jëfandikoo wirdu gi jërëjëf sëñ Thierno xam nga alwérduma xus daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu wu ngànt mm. waxtu wu ñu taamu bu dee wu njëkk wi mm. suba yi mi ngi tàmm la jël mm. bu ñu xaajee guddi gi juróom benn xaaj bu juróomi fi ñu noddi nodd gu njëkk du sore foofa foofu la tàmbalee kon ba noppi teg ca leneen sax ñu door a nodd loolu ci muxtaar la bokk bu dee gina bu ngoon wi it mi ngi tàmbalee bu takkusaan jotee du buñ julee takkusaan waaye bu takkusaan jote moo tax nit ki léeg-léegi mën na ko fekk foo xam ne du mën a julee mën naa wérdu njëkk mu jiital wérdu yi bu noppee door a julli mm-hmm. lépp mën naa mm-hmm. jërëjëf sëriñ ci leer am solo yooyu mbokk mi day laaj ne mu ne dafa am benn xale boo xam ne dafa nekk ci biir bitigu waayu juróom léeg-léeg nag mu am aajo joo xam ne da koy day yittewoo faj aajo jooja mu daal di jël ci alali waajuram moom daal ciy faj soxlaam te waajuram yëgu ko muy loolu ndax aajo jooja dana dagan ak lan la ci lislaam wax ak nu war a def lu mu war a mën a def. suñ ceerno mm. jël alal jàmbur te yëgu ko. Mm. loolu mooy sàcc. xaw mm. ñu bàyyi xel loolu. muy alali baay ak muy alali yaay ak muy alali ci am. alal jàmbur boo ko jëlee te yëgu la bu dee ci foo xam ne dañ la fa wóolu bàyyi la fa wor la. loolu xiyaan ñaari benn baaxut ci. xëy na sàcc da ngay def ko. ki ñu wóolu ci bàyyi la ci alal ji nga jël na loolu wor la. benn baaxut ci. kon kuy liggéey bàyyam it di ko liggéeyal ngir yàlla bu amee soxla na ko wax ginnaaw moom moom mi koy liggéeyloo hmm. di ko taxaw hmm. jàpp naa ne bu amee soxla su dee su far bu ko waxee dana ko dana ko hmm. may mu def ko moo gën di jël lu jëluwul mbokk mi day laaj mu ne ndax dana dagan ci ab jullit muy jaay ay yére yoo xam ne xëy na yére jigéen la ci jublu yoo xam ne dëpp wut ak la jigéen war a sol ci li lislaam wax mu ne ndax eh, eh, ñawkat bi nga xam ne ab jullit la dana dagan muy ñëw ay yére yoo xam ne day ñàkk dëpp ak lislaam moo xam mu koy ñëwal jigéen wala góor muy laaj ñoom ñaar ñooñu lan mooy seenu seenub àtte ak nun war a def waaw xam na faaw nag hmm. lu dëpp wut ak lislaam mooy lan hmm. mooy du ne eh, bu dee yére yoo xam ne ab julit waru koo sol moom hmm. lu mel ne yére sooy kenn waru koo ñëwal góor ndax loolu dimbali na ci bàkkaar la ndax dañ koy dere góor di ko sol waaye jigéen mën na ko sol bu dee yére yoo xam ne xëy na nañ ko ñawee nañ ko ñëwee mën naa tax kenn waru koo sol ci biti mm-hmm. waaye léeg-léeg am yére yoo xam ne dañuy tere koo sol ci biti waaye terewuñ koo sol ci biir néeg mm-hmm. jigéen ñi am nañ yére yoo xam ne yére biir néeg la mm-hmm. mën nañ ko sol ñëw seen borom kër loolu terewuñ ko ko ñawal jigéen joo xam ne xam nga ne ci néew la ko yemal waaye nag nga ñawal ko yére yoo xam ne kenn waru koo sol ci te leer na la yow ne ci bit la koy sol loolu yaa ngi jàppale na ko ci bàkkaar kon ñawkat bi bu ko leeree ne kii kat li mu koy ñawal nii nit waru ko sol ci te moom nag ci bit la koy sol. Hmm. kon yaa ngi koy dimbale. Hmm. waaye bu fekkee da nga koo gis rek nii mu ñëw na ñawal ma lii te yoo xam ne man dañu ko li ko tax a jóg mooy biir. Hmm. te yow xamoo ba xam dana ko sol ci biti. waaw sañ ko sañ nga ko ñaw. am na buñ ko mën a jëfandikoo gu dagan. moom kon bu ci anam gu daganul moom jigéen ñi mooy am bàkkaar. bu doon loo xam ne sañuy su koo sol moom. nga xam ne du ci biir du ci ci kenn wuru ko ñawal kenn ab jël. jërëjëf sëñ bi ci Euh, mbokk mi dane dafa am benn waay boo xam ne ab liggéeykat la woon suñ borom dogal mu faatu waaye bu muy faatu mu fa bàyyi seen soxna ak ay doom diggante mag ak i ak gone waaye moom liggéeykat boobu mu am ay biens yoo xam ne da bàyyi woon euh, léegi am euh, ci ndax muy laaj nee na mag mi ak soxna si biñ demee ba ca kanam tuuti rek soxna si daal di génn àdduna te bi muy avant muy génn àdduna fekk na borom kër bu njëkku génn àdduna muy laaj ndax soxna soosu génn àdduna am na àq ca benn yooyu nga xam ne moom la borom kër bi bàyyi wala déet lan la ci wax. waaw bu fekkee dégg naa laaj bi de. Hmm. nit bu faatoo bàyyi alal ju moom. Hmm. ña ko doon ñëpp. Hmm. am nañ ci wàll. muy ay soxna muy ay doom. muy ay gone muy ay mag bu dee alal ju moom. kon war nañ ko bu fekkee bàyyi woon muy liggéey. mën nañ ko séddale ci ay pourcentage hmm. xam ne góor gu ne am na ce nangam jigéen ñu ne nangam pour cent soxna su ne nangam hmm. lu bénéfice ba génne ñu séddoo ko boobu mën na nekk hmm. xëy na nag léeg-léeg nit faatu bàyyi alal joo xam ne moom moo ko fi bàyyi parce que léeg nit liggéey ci barab liggéey ci barab këru liggéeyukaay go wax ne bu koy fi faatu dinaa dimbale njabootam nangam loolu moom ñoom ña fekkee ne doontul lu mu doon cotiser di ko fa bàyyi bu dee moo doon cotiser ba muy liggéey. Hmm. bu faatoo ñu war koo génnee boobaa dañ koy miiras. Hmm. bu fekkee nag loo xam ne kër ga mu doon liggéey ñoo ko coobarewu di ko dimbali te loolu dañ di am rawatina ci tubaab yi dañ koy def bari lu bari. Hmm. ñoom nag suba seen ndimbal la luñ joxe kañ ko joxe ko moom. buñ ne gone yu ndaw lañ koy jox ñoo ko moom. buñ ne jigéen ñoo ko moom. nañ ko séddale it mooy wéy. loolu bokkut ak nag mu am alal du mu woon mm-hmm. mu faatu ñu war koo jox njaboot gi mm-hmm. waaw dañ koy miraas ndax bokk moom ni lislaam santaane miraas mm-hmm. jërëjëf sëriñ ci leeru am solo yooyu mbokk mi dane lan mooy àtte bi nga xam ne suñu borom da koo teg nattu feebaru toqal saa yoo xamee ne jàpp na bi mu jàpp ba noppi war a dem di julli ji bi mu demee ba julli rek daal di gis le ci leen ci ay yéeram ay tooy tooy yoo xam ne da ko toqal léegi muy laaj ndax dana dagan mu jàpp julli gee su ci biir njàppum gee moom ndax dana dagan mu julli ci naafila wala déet xam nga ko yor wéradi yooyu salas hmm. nga xam ne sobe suy génn ci moom la ci hmm. lu dul sago hmm. di la mën naa doon gaanuwaay mën naa doon ngelaw mën naa doon sobe su ne kooku liñ ko sant bu julli jotee na jàpp bu jàpp ba julli kon ku fekkee day sësale day sësale naafile gi ci géej gi. bu mm. sëlmale mën na ko ca jokk. Mm. waaw mm. benn jàpp moom mën na ci jokk mu ngi mel ni ki sañ naa tiim ngir naafi la. mën na caa sësalay naafi la. kon ki moom itam jàpp mi. Eh, am na ngànt. ci waxtu wu ne jàpp di jàpp di toj. jotee na jàpp. bu sëlmalee ci géej gi te nar caa teg ci saasa ay julli. mën na ko caa sofale. waaw jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci liggéey bu am solo bi nga xam ne. yaa ngi defal lislaam waaye rawatina yoonu murit kon mbokk yi lii moo doon seen émission euh, euh, gàgganti muy émission bu am solo boo xam ne dañ ko def ngir fàttali nit ñi seen diine waaye léeg am ay laaj yu wadd yoo xam ne day rot ñu ngi ciy ànd ak Serigne Mbacke Abdourahmane moom lañ leen doon ànd ak moom yéen ñi képp koo xam ne bëgg ngaa dugal say laaj mën ngaa woote ci numéro yi 77 631 91 soo ci wootee rek da nga mën a ànd ñun. am na dañuy jox sëñ Mbàkke mu tàggatoo su ko defee ñu tàggu yéen benn yoon incha allah. waaw kay jërëjëf sëñ Thierno ñu ngi lay dellu nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp jotaay bi. Mm-hmm. yëpp ñaan suñu borom defal ñu tawfiq mm-hmm. jariñ ñu ci xamal na lu ñu amal njëriñ jariñ ñu ci ñu ngi dellu di siyaare mbokk yëpp di siyaare sëñ Abdou Khadre ñoom mm-hmm. mbokk yëpp ci taxawaay salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke ña ngi lay sant bu baax di la gërëm di suñu borom doolu laa defal tawfiq kon lii mooy seen émission gàggante waaye di nuyu mbokk yi nga xam ne baaxoo nañ leen koo xam ne sëriñ Abdou Lahad Thierno sëriñ Jili ak mbokk yi àndal yëpp di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam